خالدا امينا ورزقنا اهله من قال ومن كفر فاماتيه قليلا ثم اذا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 salaamualeykum wa rahmatulah salaamualeykum wa rahmatulah. asalaamualeykum wa rahmatulah. asalaamualeykum wa rahmatulah. middiin. iyaaka na abudu wa iyaaka na sa'iin. ihdina sirata almustaqiim. sirata alladina an'amta alayhim. saafo saaf. de law. maa sa yaay liyoyo ak wala num musibo ne walen lo ñaadi wala yo keb yan walen mtk ni purinu la musibo kila isen isen mansay aliyo mati balay yemite kebe ngole ne yo kumi kela kolio wala kumi kela ku bajta wakantu me lawe yo mini purinu la di balay no koru mom ye nanu la jaat ano sanna jahali jahali ano sana ngolle takan wano san sumte jalo ja e ngadduñe tu e ngay e jahase ano sana ngolle ta nafo woro ta nantoña ano san on bodi bugal en te ka yo e ngolle mi prino la di bugala bukila yari be dum to moy wallu julli bi pasque jisanke njaku jolek niken ka sanke na ku ngol ne ku jupo bawola tu jammer tora ngol tu jam wara ku jolek problème julli bi nu ñu daan jullee rek lañu ñu jullee ndax ñun amuñu beneen wéeruwaay ginnaaw yàlla ak yonent bi lu dul kaaba ba ndax jullit bu nekk fa nga yaakaar ku fa yaakaarul rek yaakaar naa am na lu des ci li nga li ngay woote ne yow jullit nga ndax ñun makka saa yi ñu waxee nañu julli rek ñun dañuy julli ndax ñoom lañu am waaye du makka lañu am si ñu fa nekk lañu yaakaar déedéet lu fa yàlla def loolu moo ñu ñor te loolu moo ñu doy ndax kaaba nga fu mu nekk yonent bi nekk fa yaakaar naa boo nekkee jullit rek mënatoo am lu raw loolu ndax ñun rasul mooy suñu yonent mooy suñu sëriñ ndax yàlla bu ñu jógee ci yàlla yonent bi moo ci tegu mo nekkoon suñu sëriñu baay ñun ñii mooy suñu sëriñ te yaakaar naa ni ku topp si ñun ñëpp ku ñu dëggal tamit rasul rek ngay dëggal kaddu alquran ngay dëgg wax dëgg yàlla nag yaakaar naa ñoom seen biir ñoo nekk di werante julli yeeg bañ julli man ay ñaari commission yeeg benn commission yeeg ay association yeeg suñu yoon nekku ci dañu bëgg ñëpp xam loolu faruñu fen islaam lañu faral ndax islaam rek lañu am waaye nag ay nit di dem di jël say ay décision bopp ndax ñoom dañuy concurrence seen biir suñu yoon nekku si nguur gi tamit na war nañu xam fu ñu war a teg seen tànk ak fu ñu warul teg seen tànk depuis jamono Senghor problème julli yi am na fi tabaski ak korité ñu téye seen bopp loolu mooy seen warugar kër diine yeeg ñoo war a toppatoo loolu seen cër la ñoom yàlla moo leen ci kërale buñ ko toppatoo bu yommal ci yaamat ku nekk di nga nettali sa bopp loo doon def ndax boo toppee sa intérêt bopp topo intérêt yàlla tooñ nga sa bopp ndax yàlla sax sa intérêt soxlaw ko waaye war nga ci góorgóorlu ndax mu ràññee la ci lu baax ndax bu la ci ràññeelewul rek mu si bëgg président bi yaakaar naa ni gars yi nañ ko nax te bu moytuwul woon musiba dina ko dab ndax dafa am lu xamante ni lu mel julli arjuma loolu du moom moo waroon jël décision ne dañuy tëj dafa waroon ne kër diine yi seetle ni ngeen di tëje ndax ñun suñu bopp ñii ñu toog xawma ma feneen waaye fii bu nekkoon benn kaa laa wax nee nañ ma am na ci hôpital bi xamal ne ñun dañuy tëj kenn du fi julli ku nekk di nga julli sa kër waaye amul benn kaa yëguñ ni am na ku tawat bi jàpp fii bu leen ñun indil ay problème mais problème bu demee ba am ni am na ñu feebar yaakaar naa ni ku am soj sax waroo dem ci mbooloo ndax am na ñu xamante ni seen wér-gu-yaram maywu leen dañuy gaaw a jël feebar ci keneen nga toog sa kër ba nga wër nga door a dem waaye nag fu amul feebar nga ne na ngeen tëj comme ñëpp dañu war a tëj loolu du yoon yàlla dimbale na ko nag dëgg naa ñeneen yi nee bu ñuy waxtaan dañoo waxtaan dëgg naa waa opposition président bi lu mu def nii moo gën ci moom mu dellu ci ginnaaw bàyyi foo xamante ni ñoom jël nañu seen décision bopp ne du ñu julli fii wóorul ñu fiy jullee kër diine am na seen imaam yaa ngi fa dinañ ci waxtaan ñu juboo xool lan la lan lañ war a def waaye boo gisee depuis jamono Senghor benn président bugul jël responsabilité mu wax ci julli tabaski ak korité te mu yàgg am ci Sénégal lii lañuy ñuy daw am na lu yàlla cërale sëriñ yi boo leen songee da koy yëg mu neex la mu naxari la kenn du la ci mun a défendre da nga koy yëg parce que am na fu ñuy tollu ci askan bi am na lu rôle bu ñuy joué donc da nga leen di bàyyi am na ñu xamante ni ñoom ngay bàyyi ñu wax sen askan nga jox len sen cieur ñom ñu wax waye bo dé dang koy jox responsabilité bobu comme sañu bay bi chef bi wala préfet bi wala sous préfet bi wala gouverneur bi rek dang len di indil tolof tolof duñ ko atta té tamit ñu xamanteni ñoy homme de loi yi nañu moytu ñu xamanteni problème mën na joggé si ñom ñu yax image Sénégal duñ ci yam ci yax image bi rek waye nañu xamni ni tamit ñoom kaarange lañ fi nekkal te ku nekkal kaarange rek war nga moytu yeneen yi bum la dab ñu gën a moytu gën sàmm askan bi waaye tamit ñu dellu si ci problème julli bi ñun faruñu si fenn makka bés bu ñu nee suba la ñuy woor ñun dañuy woor bés boobu bu ñu nee suba la ñuy julli korité dañuy korité bu ñu nee suba la ñuy tabaski dañuy tabaski képp ku dëgg képp na dugal loolu ci boppam waaye dépendre ñu si commission wala commission gauche wala commission droit nekkuñu si loolu nekkuñu ci parti politique ñoom nag dañoo dem jàngi ñeneen yi jàngi Arabie Saoudite ñeneen yi jàngi Égypte tubaab yi bu ñu indi ay vaccin ne leen na ngeen vacciné bu yóbboo na ngeen ci gaaw ndax yàgg nañ di fi vacciné ay doomu aadama te musul rey kenn bu ñu tilimal wax dëgg yàlla am na ay tubaab jullit am na tubaab yoo xamante ni du ñu ay jullit waaye tubaab yi nu ñu mel ñun bu ñu ko meloon wala suñu njiit yi bu ñu ko meloon yaakaar naa tolof tolof yu fi bëri duñ ko jànkoonteel bu ñu yàqal doomu jàmbur yi ndax seen intérêt bopp ndax ku nekk daa bëgg am tur rek tur moo ñu sonnal muy sëriñeek muy ku nekk ku nekk bëgg na siw ndax tubaab yombalal ñu communication bi ndax yàlla ñoom la ko cërale moo tax ñëpp foo tourné rek nga dégg ay waxu caaxaan tubaab yi génnee nañu vaccin génnee nañu lii te kenn mënu la wax bii tubaab la wala bii ñii ñoo ko indi nañu bay caaxaan yooyu tubaab yi nekkuñu si loolu lu ñuy reyee Afrique lan lañ fi soxla pour rey ñu lépp ñoo ko contrôlé ku contrôlé ba pare lu mu lay reyee lan la soxlati ñëpp xam nañu loolu ni ñoom ñoo contrôlé waaye nag tubaab amul boobu yéene pour réew mi bu amee ku yéene boppam nag pour lu ñuy indilee problème mooy suñu mbokk yi xamante ni dañuy wax ay waxu caax ñu bañ a déglu loolu torop te ñuy moytu ndax dinga nga feebar ñu yóbbu la sax war la faj nga ne déedéet dañ may rey wala nga bañ a dem faju parce que dañ lay rey ndax dañu dugal loolu si sa bopp nit yi dañu def attention torop ci loolu ñu bañ a déglu waxu caaxaan yi ñu fekkee ay déwén yu bëri nag ñu ngi leen di baalu ak di ñaanal yàlla it wàccee yërmandeem si askan bi ci adduna bi yëpp anosantanam mtd yanfuwo mtd kanola rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar salaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu bismillah fatiha la la. Shivana, Shivana, along. duya akila ni tẹ bambẹ camọ lakira. ayọlọ nakata kata duya akila ni tẹ bambẹ